ñu ngi leen di te di leen baalu àq ginnaaw bi leen baalu àq di yàlla mu doon dañoo defal ak njëggalam ci barkeb sëriñ bi ginnaaw bu loolu yooyu ñoo di dénk leen baaxoo dénk képp ku fi ñëw ko fi mos a ñëw ñu gën a góorgóorlu bu baax si ndigal yàlla yi si di ko jëfee suñ kémtu la ay kàttan te doole wattandi ko tere yàlla yi te ko daw suñ kéem lay kàttan te yow suñ ku bëgg ak mucc àdduna ak àllaaxira day nangoo bàyyi tere yi waaye ku bëgg a jariñu àdduna ak àllaaxira it day nangoo jëfe ndigal kon jëfe ndigal ak bàyyi tere rek tax yàlla indi ñu fi képp ku sa nekk nam sa war a nekk si bu wéetee ak bu wéttandikoo bu sëree ak bu jigéen muy guddi muy bëccëg bis nañ la suñu borom teral ko ba ngóor ni ko yërmandeem ak tabam la jëfandikoo si moom waaye jëful sax lu waaye nag képp koo xam ne nangu te ko boppam si ndigal tere yi du si wattandiku dara loolu si romb rek def ko moom bis dina jot suñu borom teg si loo xam ne la mu doon juddoo sax dina ko kon fu man di nekk naan xool la yàlla gërëm ñu nekk sax te lépp luñ jàpp ne yàlla bañ na ko te am si la bokk ay jaaxaan si la bokk lépp lu nuru dara it te doonu ko it si ñu wattandi ko loolu yi suñ ko defee suñ tey dara du si yàqu suñ ko defee suñ la dara du si yàqu na ngeen xam ne dañuy dund dund bu gàtt fii ci àdduna te balaa yàgg ñun ñëpp ñu maas jóge fi ñun ñii mbaar mii di amul kenn koo xam ne téeméer ci ginnaaw fekk na la fi ci zahir te balaa téeméer at ci kanam it fekk nga jóge fi bu yàgg kon nag war a noo laxasaayu jëf-jëf yoo xam ni waaw buñ fi jógee ba ñëpp fàtte ñu mën a nekk jëf joojee te nekk na doon nekk na noflaay waxta dëgg jëf-jëf joo xam ne nag waxtu woon fi jógee ko kenn xamatul si ñun dara yéen jëf jooju doon nañu soxla foofee te jooju jëf dara lu may ak mooy yàlla ak nekk si lu yàlla gërëm nan waxta a baax ko ay jaaxaan bu baax a baax te jéem a ñoŋal suñu dund te ñoŋale ko ak topp yàlla akum jub suñ ko defee suñ lépp dina jëmal na ngeen xam ne sëriñ bi rey na lool waaye muy réer yi kenn mënta jariñu si moom te juboo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réy na lool waaye moom it kenn mënta jariñu si moom te juboo suñu borom it réy lool waaye moom it kenn mënta jariñu si moom te juboo ak jub moom ku ko amul mënta jariñu si kenn adduna mënta jariñu si kenn àllaaxira ki jub rek mooy mën a jariñu tey ki jubit mooy mën a jariñu bu ëllëgee ne la di wan ne ba liggéey yomal xiyaam tiis yan fay wax ak coono yan fay wax ak jafe-jafe yan fay wax lépp la ko fay yóbbee ne rek mooy ñàkk a jub waaye ku jub moom tiis yooyu ak coono ak jafe-jafe yi di fii nga koy noppee dégg kon nañ góorgóorlu si ak jub te watt di ko ay jaaxaan watt di ko am foog watt di lépp lu amul solo ñoo ngi leen di dénkaan ngeen ñu gën a ci jàng alquranul karim te bañ koo sàggane suñ kémtu lay gàttal ginnaaw alxuraan wee ñu góorgóorluwaat ci xasida yi sëriñ bi te bañ koo sàggane suñ kémtu lay gàttal képp xam ne ñaar yooyu wér na wéy na koo jàng ci ñaar yooyu ngir da ngaa farul iji nga fexe ba salaatu ala nabi nga fonk ko wala fonk istixfaar wala zikkar ak xeetu zikkar boobu moo gën toog ci jotaay di wax ay jaaxaan di wax am fa di wax loo xam ne dalay jural musibam ëllëg di la jural musibam tey yàlla nu yàlla doon yi dimbali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu